waaw xool li mu sol xool li mu sol ma sa tàgg ma sa yer ndaag fi ne nee naa ko dawoo ci ñëw bi trifin tarawal fan ta pàcc mbiri bàkkar kër waaye mbay na la yàlla sàmm doomu Thiès kaay bi ndax Thiès nga nekk defoo foofu dili waxoo fa dili su ma gisee ku lay néewal doole sama xol day tooy su ma gisee ku lay néewal doole sama xol day son ndax dangaa nekk Thiès bëgg sa yaay nekk fa marqué fa sa empreinte ba ñëw Dakar wàllu science yi nañ la uuf nañ la téye te xam ne xale rek nga loo def nañ xam ne succès la rek waaye du sa jikko liggéey bee koy la yàlla sàmm nag. ci barke Sëriñ Tuuba dañoo bëggante ma loolu tey démb la. eh xoolal Arame. ci loolu waa Arame. Eh, eh, mais euh, sa tëri yi rafet na tamit Baye Modou. Mami Bobra. Waktu begitu, kan musuh musuh nyulai kamu.

jour. am na jour. ba pare am xëy ci ginnaaw. am na xëy ci ginnaaw. ay bàyyi ko. ba pare dafa indiwaat tranche ponce bi. loolu moom bi. bàyyi ko ci incité. parce que xam naa ni tendance la. Correction by Modicani. nekk na mais daanu mel ne moo daan daanu da ngaa daanu mel ne yaa de. ah non non par division arbitre la mais dafa mel ne yow yaa mu loolu mooy dëgg. parce que rasulullah yaa jaay combat bi. maa bëre maa xeex. yaa def sama xaalis ci mystique def ci man maa leen jaaxal. Pogola na <laughs> déggal xaj ci sama kay waaw li nga sañ sa ba xeeboo ko. non ak wëndeelu bi baax. waaw lii la. gis nga lii lan la mais lii ku la ñëwoon. xaarim kase almaama yaasin jaar mhm. moo fi jaar ngi Cambérène mhm. mhm. di ko roq bam nooy waa mbay kañ ngay ñëw ñu yëngal pikin wax ci jamb saabu bi ak diw bi waaw léegi léegi kan moo koy ki koy jamb euh, kan moo koy jamb jamono ji xale bi am diplôme a ngi nii taxaw tubaarikàlla macha allah a ah, ba maam jaay safoo dañ ne moom la gars yi jox bopp de man daal maay xale bi am diplôme tubaarikàlla Rakku Abdou Aziz Ndiaye géwal bu sëy lii ma kañ te mën a defar diw ak saabu <laughs> may rek laay topp mais Baye Modou Kane. waaw Mbaye moom frère. mais Baye Modou Kane namoon namoon nañ la. ñoo la raw ñoo la raw ñoo la raw. mais mais tey ñu gis euh, nga waaw Kumba sama sœur sama xarit sama artiste. sama nee naa benn artiste laa ko àdduna mooy Kumba Gawlo. dinaa déglu a mais Kumba Gawlo man mooy sama artiste. comprendre nga. woote nag def lu rëy. artiste eh, eh, xam nga Sénégal ay tailleur bëri ay styliste tànn ma ne ma yow laa bëgg nga génne sa collection boo xamante ni da ngay ñëw lancé ko. doo fay dara. mu ñëw ay yére indi xale yu ñu sol ko mu rafet vraiment. di bëgg ci moom di ko ñaanal baat bu wér pourquoi chaque jour euh, euh, chaque jour rek da ngay indil ay ay modèles yu bees pourquoi da ngay créer lu bees pourquoi yaa créer su gars di di di leen voyage yow yaa ngi di créer yow dem fi mu war a ngay dem ñëw fi mu war a ngay dem bu njëkk ba dañ daan gis téer yi suñ tabax si ba pare rek dañ daan laal yow dañoo tabax si ba pare nga topp nga ñu naral moo tax nga topp bëgg gars bëgg rek parce que tabax ak màggal ma dafa jege màggal moom nekk na programme boo xamante ni moo gën a mag mën nañu moo gën a mag ci programme yooyu. comprendre te il faut nga nga nga nga nga reculer pour nga mën boo jógee ci tabaski war a préparer màggal deux mois la il faut nga toog xam nga mën a xalaat pour war lu bees ñëw ba gars yi kontaan. ba pare nga jël xale yi gën a dañoo xew. Mamy Cobra fekk naa fi Mamy Cobra fekk naa fi. keneen ki keneen ki aram aram ak ñeneen ñi ñu gën a xew Sénégal daal nga jël andi waaw parce que bi jàmp na xam nga yabee doo ñoom ñi am na ñeneen ñoo xamante ne war na ñoo ñëw mais xam nga affaire dafa jàpp da ngay jël juste ñu disponible rek daal leen dool dool daal aussi ma koy remercier moom ni sama sœur vraiment test boobu woo ko mu dawalee bu si ñu assisté def ko rafet kontaan te nii dafa sol ba ba ba ba ma defee ni sonn na mënuma nax des jàpp ci xam nga dafay ko xool nit ku baax aussi euh, nu mu tuddati aram aussi may man kay bu mag la saar bu mag la sànq laa ko woo bu ko woowee mu maa ngi ñu di ñëw gis nga nekkal man ba ba ba affaire bi jeex na waaw Mbaye aussi noonu kooku sama rakk la kooku moom sama alal la. Ah. kooku moom mu ko yeewul xaaju guddi sax mu jóg. ah kon nangu nga ni yaa dàq ñëw jamono ji. a ñëw. <laughs> non d'accord nga a gën a ñëpp mën a ñëw. ah nga ñu mën a ñëw ñëpp a ñëw. d'accord nga ni ah, fi gars yi di rootee fa ngay ah, fa ngay tànkee woo fa. <laughs> ah ah mais mais ah xooli sylvie Baye Modou. waaw maanaam. ah maanaam a génn fi borom Italie waaw mu dem tënd ko foofu mu cher trop mu yónnee moom. xam nga ah. def nii dama solo. jaajëf. yaay sëñ na anam. jaajëf ah, mi ngi noonu. jaajëf Baye Modou. kontaan naa ci yow kon incha allah ba màggal incha allah maa koy couvrir. yaa ko yaa ko incha lépp yow la kontaan naa ci yow frère.